ñun ñoo bokk objectif te suñu objectif c'est la réélection du président Macky dès le premier tour dañ comprendre loolu heureusement Moustapha l'a bien compris il a compris c'est la raison pour laquelle quand il est venu à Kaolack li mu njëkk a mooy je passe par la porte la porte c'est le maire de la commune de Kaolack c'est Mariama Sarr li mu njëkk def mooy jël ñaari auto camion ne madame Mariama Sarr maa lay jokkal ñaar oto yi pour l'assainissement de la commune de Kaolack ku bëgg sa réew ba def loolu lu tax ñu war a le choix le bon choix pour voter le président Macky Sall à travers Promoville le président Macky Sall a injecté des milliards pour faire des réalisations dans la commune de Kaolack soo ñëwee garage Nioro aujourd'hui li nga xamante ne mooy pénétrante ndànkaan bi tali bi woon la suñ jógee ci pénétrante ndànkaan il a la route de l'émergence war a jógee pëne ban bay traversé asalum saara dugg biir saara jàmm gën dem parce que asèni génn te route nationale ba route boobu aussi même chose que route bële ba pare dafay am assainissement dafay am éclairage public dafay ànd ak aménagement paysage ça c'est le président Macky Sall à travers aussi Promoville. la route Birignac c'est madame Mariam Sarr et la maire de Kaolack qui l'ont réalisée bi mu ñëwee. la route ñaari fere lycée technique ay yéen a gis travaux yi je crois que dañ leen ko la dañ leen ko wax naan axe Ocass. ñaari tali ak occas jëm lycée technique jëm ñaari tali bu nawet jotee oto yi duñ fi nangoo jaar aujourd'hui on a fait des pavages ci axe boobu soo ñëwee jël l'axe Koundaw depuis plus de vingt ans ñaar fukki at tali bu yàqu Koundaw bu fa jigéen doon mucc parfois dañu am ay difficultés pour évacuer ko yóbbu ko hôpital aujourd'hui la rue est complètement bitumée ça c'est promovible encore bu ñu ñëwee tey ci côté éclairage public lamp yaa ngi lee may seen c'est Mariama Sarr qui l'a réalisé avec la mairie de Kaolack sur fonds propres sur fonds propres avec un budget de 400 millions de francs CFA dama fier ci défendre bilan bu ñu bëggee président Macky Sall àggal ay réalisation dañ ko votel le soir du 24 février. mbokk Touba Kaolack. mbokki Kaolack mbokki Saloum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam madame le maire maa ngi lay souhaiter la bienvenue fii ci Touba Kaolack di tàmbalee nuyoo bi gi sunu mag sunu wóllëre sunu sëriñ ni sëriñ Babacar Mbacké mu kabaro Abdoulahat Diouf mon frère nit ku baax nga 1978 ba léegi yéen a ngi voté li ci ëpp Abdoulaye Wade nekk na opposition ngeen koy voté fal ko ngeen fal ko mu nekk mu dem élection yi mujj li ci ëpp ngeen voté leen te terewul dara amul président Macky Sall li mu fi def ci Touba Kaolack Macky Sall euh, Abdoulaye Wade ko fee wax ji nag duwér ndax madame le maire Touba Kaolack moom xanaa dafa nekk procédure rek te yaakaar naa ne fii mënoon nga sax bañ a teg ndax équipe bi nga xam ne ñooy équipe bu comité électoral nga xam ne ñëpp a ngi ci Maysa di ñu gunge ak ñi nga xam ne tudd naa leen yëpp yaakaar naa ne boobu léegi am na liggéey buñ fi def boo xam ne ni ko Aziz Ba bu waxee ñëpp ñi nga xam ne ñoo daan sonal parti bi fii léegi ñu ngi ci présidentielle seen avenir ci loxo président de la République Sall la ko teg mu xam ko di ko doxee di ko jëfee kon ngeen ànd moom yéen it engagé wu dem massivement le 24 février sànnil ko carte ba bu boobaa ñi ko ñëpp waxee 10 heures suba incha allah dana fekk le problème sera réglé xanaa feneen dañ koy waxee ñun fii Touba Ndorong. waaw jaajëf alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi fii tey ci Touba Kaolack Ndorong nag contexte bi ñu ci duggee ñun dama bëggoon tooñ na tuuti sa waa ji euh, Babou wax ko ne defe naa ne 2012 APR parti bi amoon juddu am ñetti at la yàlla def def ci barke mu dem deuxième tour am ay coalition gagné élection présidentielle bi ñu ñëwee fii ci Ndorong dañ fi fekk contexte bu xaw a doy waar muy inondation muy éclairage muy assainissement boo ko waxee wax nga inondation yàlla di dañu dimbale ba tey jii son excellence le président Macky Sall indil ñu am programme d' assainissement bu douze milliards cinq cent tey ñuy reprofiler la bande Daouzu di defaraat station de pompage defar xaaxun defar coofog tey installé fii réseaux sociaux yoo xam ne dana tax nit ñi am branchement à fii ci Touba Ndorong ak Tabangoy ak Jaleñ muy cinq quartiers yoo xam ne la ñu woon ci projet bi loolu sant yàlla tey suñu mënee def dara ci Promoville c'est grace à son excellence le président Macky Sall Promoville nag ñaari parti la benn bi Banque africaine de développement moo ko financé benn bi ci BCI lañ ko financé muy budget consolidé d'investissement muy budget état yàlla def yéen ju ëpp rek ndax dañ ne ñun Touba Ndorong bi ñuy wut élection maire bu ma ñëwee ci Pa sax ñu dem ci kii yi dafa am kër lawbe yu nekkoon foofu ci ci koñ bi dañ nañu du ngeen du ngeen defarul tali bi duñu leen voter ñu naxante ak ñoom ne voté leen rek dinañ defar tali bi bu ñu gañee yàlla dimbale ñu ñu gañee Promoville ñëw ma ne Ndorong priorité la xanaa yéene ju ëpp jooju moo waral Ndorong sax mu jee